Euh, ku ne xam na sa diggante digganteeg euh, yenn célébrité yi euh, ku ci mel ni ay ñoom Pape Diouf ku ci mel ni ay ñoom Balla ñoom Cheikh Amar tey sa doomu ndey Pape Diouf amaat distinction bu bees ñu nommé ko l'ambassadeur de la musique africaine. waaw loolu ma ciy sant yàlla ndax olof nee na ku wal mburu tudd dëkk man lépp luñ ma laaj ci ñii nga wax nii. rawatina Papa Diouf le leader de la génération consciente ma koy nuyu bu baax a baax sama mag jooju di sama xarit kooku lépp lu ma dégg ci moom fierté la ci man ndax yàlla moo dogal ci dogalam ma nekk ak moom bokk ci staff li euh, génération consciente kon kooku lu ma dégg ci moom mbégte lay nekk ci man lu ma dégg ci moom àdduna mbégte lay doon ci ñoom ndax nag lu ma amagul lu nekk nag dafa ñëwagul ndax lii nga lim nii yëpp am na yeneen yuy waaj a ñëw yo xamanteni ci katunu yalla dan danañ ko ko nomé ndax budé ci mbax ga budé ci yaru ga ak dool don talibé ñett yi nag am nak lo am lu nekk ci yow du sens ci yow mérite la pap djouf ak social dama ko sel ci ben émission mune buy joxe day am kersa ndax talal dafa metti wa nee mom buy di buy joxe ki talal loxo la gëna yërm wa xam nga da ngay dégg olof nan bu nu démé ëlëk yomal xiyam allah rabbi raadan dugg aljana am sarax ngir yalla jox la dem safara bobu du won deug bour li ma jot xam ci pap Diouf ak new limi def ci social yalla mi ma tim xam ni nit di wax di lap lap deful xaj ba xajat ba ndax nek na nit ko xamanteni lepp lu mi def daf ko bëgg def silence bari na yo xamanteni nit ñi ñoko ci duggal dugal sax nan ko taraangay àddinay beut waye bëgg na lepp lu mi def lu nek def ko ci silence ma ngi joxe rek ben euh, exemple ci bi mbënd mi amee moom réew moo ko ñor Pape Diouf bi mbënd mi ane amee yëkkati nag koppar bu bari jox ko ñi nga xamante ni tey jii ñoo ko yelloo fii ci réew mi jàppaleen ci social bari na ñoo xamante ni tey jii mais bul fàtte ni Pape mais ambassadeur lan ko nommé ci social kon kooku yi lan nga def ban ban ban nommé la ambassadeur du ay caaxaan tabaski gii képp koo xamante ni tey jii yaa ngi bokk yaa ngi bokk ci staffam ak musiciens yi ñëpp la yëkkati ay xar jox leen ko te njëkkewu ko tey. tey musique amul ku ne xam na ni gaañu joué wu ñëw euh, sociale boobu mu ngi koy continuer ci groupe bi ba tey ak yi. chaque jour Papa Diouf chaque jour ci sociale lay dund xam nga la moo tax buur wax naa la ko léegi doxewul ay buzz wala mu doxee nit koo xamante ni tey day def dara ba pare bëgg nga koy wax soo ko ko defee ñaari ñetti sax su lay defalaat daf koy waaj kon kooku tey li muy def yëpp bu ko doon fësal nag. quoi kon ñu xam ni kii lii muy def nag lu mu man la kii lii muy def lu mu jëlee ci biir xolam la te nag xamal naa leen de man da xanaa lu mu ma defalul wala yu ma lu ma yëgatul mu defal ko nit waaye lu ma yëgati def na ko ci réew mi wala mu defal ko nit dina siiw na faatiya lu loolu sëriñ xam lu tax nit ñi nag léegi dafa am noo xamante ni noonu ngay demee ñoom dama jàpp ne nit ñi boo leen di dimbali te yàlla rek tax te yàlla rek tax jàppewul la sax ne yow da nga leen dimbali te yàlla tax da leen di defal million nit defal leen ñaar fukk ñu bàyyi fa sa million bi di coow ce ñaar fukk ndax nan leen ko nan leen ko nan leen ko defalee waaye dama jàpp ne nit ki boo koy dimbali ci sutura la neexee nit ki boo koy dimbali kay da nga koy dimbali te yàlla tax waaye nit da lay yëkkati lu toll ak million jox la ko kii yëkkati cent franc xam nga cent franc pièce la day xaraŋ-xaraŋ million nag daa silencier xëy na looloo tax nag. <laughs> diggante Pape Diouf ak Bébé Bass dañu gis que Bébé dafa am complicité bu doy aar ak benn touche bu muy bu muy contribuer ci carrière Pape. tudd nga lu ma neex nag. ndax nag sax grand il y a une grande dame tudd nga lu ma neex waaw baas pul la moomu doomu alaaji yoro baas kooku ko am way ñu way la moom dafa nekk nit koo xamante ni euh, jël na sax ci jukkay Papa Diouf ci li muy def muy jigéen ju mën góor nag barke Seydouna Mohamed Bébé Baas nekk na nit koo xamante ni euh, nit ñi maanaam ñi mu nekkal sax xamuñu ko képp koo xamante ni tey jii bëgg nga Papa Diouf amul ci yow xaar ma yàlla képp koo xamante ni xaritu Papa juuf nga mi ngi lay toppatoo comme ni muy toppatoo Papa Diouf lépp loo xamante ni tey jii lu jëm ci wàllu bis bi luy jëmale jëkkëram kanam Bébé Bass ma nga ca te xam nga loolu lan moo la koy firndeel ay waay waay bi ko Papa Diouf waay laa ilaaha illallaah non dama ni Omar Pène way na way na way na way na way na bànn coon ah, way na jaaga Il ah, Youssou Ndour way na de ah, Papa Diouf génneel Bébé Bass. di nga xamante am way rek ñu way la. am way ñu la collaboration Papa Diouf ak Subatel parce que ci label la jóge ah ci label mais ñu gis comment mu mu di contribuer ci scène yu mag ah. waaw loolu lay la ku il pas la de la ki ko dénk <laughs> waaye kooku kookoo mën mbir nag yaa ngi door a tudd nag eh, dàllinkoo gi Matar Diop suba teel maa ngi koy ñaanal sama frère boobu yal na yàlla guddal fanam yal na yàlla wéral ko laaj nga ma ci ko am fit ko am ambition koo xamante ne fi muy xalaatee ak gars fi muy xalaate bokkul ma ni pombiteere ma gënal pataas kun ci yóbbu tribunal sa avocat baaxul. kun ci yóbbu baaxul sëñ bi lay waa li may tàggatoo mooy di ñaanal àdduna di ñaanal waa Sénégal ah di ñaanal ñëpp mbas mi nga xamante ni moo dugg ci réew mi yàlla na ko fi yàlla jële ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa kenn ku nekk yàlla delloo la say activité di nuyu sama xarit yi ma yàlla booleel ñëpp nag di jiital Matar Diop suba teel ah di jiital euh, sunu chef de chef d'orchestre Zil euh, Diop su ma ko joxee nuyoo bi rek jox naa ko ñëpp di nuyu sama frère Xaadim juuf topp ci magam ji sës ko rëkk te rëkk ko Birane Baro hmm, buur géwal staff bi dafay yaatu Zil Teranga hmm, Badara Gajaga di nuyu ñëpp ndax Matar Diop suba teel moom mu ngi fi waaj a créé loo xamante ni coow dina bëri de. coow li waaye di nuyu ñëpp nag Abdou Karim Metsi sama xarit hmm, di nuyu amet Diouf bu Seri Côte d'Or di nuyu ñoom Bamba fay sama xarit yëpp. waaye di jox nag mention espécial nag buur géwal yow mi ak waa Dakar acti nekk nan site internet boo xamante ni macha allah biñ fi ñëwee yàggul waaye bi nu ñëwee jël nañ seen place jël leen moom.